su ma waxatee ngeen ne waxkat laa waaye yéen dañu ko bàyyi xaalis bi mu lekk ko jàmm yéen fanaan man du ma ko def. ñu def man de du man de man de man de man du lekk sama xaalis. rek lay def loolu la mel nag jikkoom la dañuy mu nekk ñu génnee ko ci. billaay dafa mën na fen. waaye Ousmane est-ce xam nga ne Ousmane dalaa nag. waaw baax na xool yi mu lay xool. xaw ma ndax bàyyi nga ci xel. jarul ngay ree de <laughs> waaw na. waaye nga yow da ngaa ñime sa bopp. da ngaa ñime kaa. man de moom lépp laa yor sama digg loxo bi nga wax ma nga ñàkk maa wax. yow na xam naa ne doo bañ xam naa sa jikko Ousmane moom mun na la dama laa nga ne ko waaw. ok maanaam instant bi dama koo du sama weeru koor sa nag mais dama koo wàññi. kenn la mën waa jànk. waaw yaa ngi dem. ba guddi. maa yow yii yow fàtte naa gis nga suñu kër dafa am sëriñ. yow tamit mais ma daaneel ngir yàlla mbasa mbasa gi xaj nga déglu ma. bàyyi di ma arafto di ma dagg yow suñu kër sam papa moo am sëriñ. sëriñ bawal moo ko ñëw seet ci kër gi ñëpp ngi rang ay monsieur le maire yi. ah ñoom Saara Ablaye ñëpp a fa. gars yi daal chaque jour. koo xalaat muy notable ci dëkk bi dëkk ku Saaraar yaa ngi fay rek. ñoo xam nga ni man affaire Serigne doxuma ci. xam naa loolu mais kii dafa mën. kii du hmm. la triyaane du lekk sa xaalis. da lay defaral boo gisee nga jox ko. Ah, waaw baax na baa mën na affaire jëkkër yooyu man moom instant yi jëkkër laa xam naa loolu nga bëgg di moo tax ma la koy wax ah, waaw kon yow tamit sama doomu laa sërëkëtë dama loolu la moo tax ma ne la nga ñëw ñu dem suñu demee da nga ciy teg sa mm. bët maa la wax lii kii Samba la doon soppi golo génn gi génn sama papa tuubal ko dugalaat génn bi fen nga mën nag dangaa mën fen leer na ma li ngay wax yëpp dara amu ci laa sam papa gis génn man gisuma génn bi nag mais sam gis na génn yaag sa papa yam lam yaag sa papa yam jàng waaw <laughs> ah, baax na lii de mooy def lu baax. lu ma fekk la ci waaw léegi nañ dem dama laa xam nañ dem garaawul nañ dem rek nañ dem. ami ami may ami ami na ngay def ak coono yi yaa ngi si jàmm baax alhamdulilah ah ana suñu pap ah waaw ah, ne ko ca kaw ci kanam rek <laughs> pa borom mbuur borom jinne yi waaw waaw waaw da ah ah, ah yow est la takkal ñaareel nag <laughs> Pape dana takk ñaareel de ah ñeme woo ko waaye dina ko def waaw baax na nuyul ma ko bu baax sëñ Abbas gañ ñëfee nuyul ma ko bu baax a baax baax na jërëjëf jërëjëf waaw maaleykum salaam bisimilah bisimilah jërëjëf après kon nga nuyul ma ko bu baax waaye na def ngeen si jàmm baax alhamdulilah ay ka ay ka sëñ bi naa def si jàmm alhamdulilah si jàmm. alhamdulilah. naka koor beeg tàngoor bi waaw ah, ñu ngi si rek. waxoon naa la fii waxoon naa la fii daa tàng de moom ko dog nañ ba pare moom fi noonu da nga naan alhamdulilah. waaw ah, gis nga loolu la waaw heure bi moom daanaka moom dangay ngay mën a <laughs> dund bu baax. waaw ah, loolu la de. waaw. gis nga kii nag sama xarit la. te mhm. sama doomu ndey. si ma rëkk te rëkk. dëgg la. ba ma gisee gars yi di daw di ñëw. te bu la mhm. taxaw na ci buntu kër gi. dëgg la ma daal di koy wax ma ne ko nag suma ma sañoon nga ñëw seet si sëriñ bi donte nag ay xale lañ nag teel na di ñëw ci ay sëriñ. Mhm. Ah, waaye waaye du ñuy bañ fii. yaa gën a xam ah, moo nag mu ne moom jëkkër la bëgg mën a xaaral. Ah, alhamdulilah daal koy jaarale fi ne war naa nag génne nga. Eh, eh, eh, geen geen ci sàmba ci sàmba meegawul. Mhm. xam naa boo leen jëflantee. dina gëm li ma koy wax. koy. sama xarit la nag. Mhm. damaa bëgg ngeen jàppante. ah dama ne xoola euh, Serigne du ca dem wax la rek. Mhm. lu baax ñëpp ko bëgg. dëgg la waaw lu baax ñëpp ko bëgg. Mhm. ci kàttanu yàlla. Ah, baax na doon ñi may rek ñoo ñëw ñu kii rek. <laughs> Eh. Ah, kon dama leen di may. waaw may ñu tuuti xam nga loo xam te ni ni ñaar la quoi. mag yi ah, ngeen paree ngeen gisante yéen ñaar. damay dem. ma rek jàngal dinaa la tegal. waaw dëgg baax na. baax na ah yow yow yow ci gis boppam rek. amul problème. waaw jaajëf waay yàlla seen rawaani ànd. amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin kaay ñu. ah na nga def ça va. lépp jàmm. ndalaay sant baax kañ. ndalaay. ah ah loo bëggoon yow. am am nga. Euh, ku baax la maama mas wax ne ma man lan moo tax jigéen ñi ñeeg ñooy ñaan boroom kër waaye góor ñi duñ ñaan. Mm-hmm. am am am soxna. waaye man yéen yéen a nekk ci fulla mm-hmm. ñaan pour am boroom kër dafa baax. ndax boroom kër mooy lépp. Mm-hmm. maam mas nga ko am. mosuma am ah am. sama sa loxo ma xam. Mm.